ana Mamor ana Petit Tigre ana Usubane ana Papis Karbala xarwaar gay nekk waay Fallou gay nekk waay xarwaay bana yow laa bëgg nga aw ma wayu làmb ngañ dem wali mata ay ngañ wali mata njaay nee naa guy gëlees naa gaynde gi kuy doonu ma samba jéey waaw guy gëlees naa a tureer naa a tureer naa kuy doonu ma samba jéey mooy sama neuvième combat waaw ñaata victoire waaw mu mel bi nag par avertissement la quoi waaw. waaw maa ngi ci onze combats. huit victoires deux défaites benn match nul waaw. sa diggante ak Paul bu daaru waaw combat la rek comme yeneen combat yi fi jóge dañ koy préparer jox nañ ko cër bu mat sëkk champion la ndaanaan la mais mu ngi bëreek ndaanaan tamit dañ jox nañ ko lépp lu war si làmb ji ñoo ngi entraîné ñoo ngi physique ñoo ngi contact ñoo ngi xeex ñoo ngi def lépp jox nañ ko cër bu bëri waaw. dama lay xamal ni 2 naa am ku mu fa daan. koo daan. Bour Sine numéro 2. bii bii mooy nekk 2-0. Hmm. incha allahu rabbi ci kàttanu yàlla. Hmm. waaw. champion la ndaanaan la. champion la ndaanaan la waaw damay seetaan ay combat am yëpp day dégluwaate. waaw. bu la man kenn du ma déglu man arbitre bi rek laay xaar. waaw man arbitre bu wàccee loxoom noo toll maa ngi sa kaw. Hmm. man du ma bëree neneen lu dul noonu. Mamor du Njombe. Mamor du Njombe laa wax. mooy maanaam li gars yi di foog ci moom newul ci moom waaw day xew nii rek waaw waaw. maanaam pour yow waxkat la. waaw waxkat la taasukat la waaw. Hmm. waaw mais ci biir géew bi maa ngi moom kese bu ñu ci desee dina xam ne moom motul njombe. aar si loolu bu at bi siflee si kawam laa jëm. kii du ma yàqal sama yoon sax du ma liggéey ba heure bi booy bu ndaw di ko yàq. Hmm. Paul moom kër borom daaru sax mu amul Paul. non non kër maam Thierno Ibra Faati amul Paul bay am daaru. loolu nga fa bëgg a jëlee yow. non loolu wóor laa ngay wax nii. bu siisoo ne du fa jóg nag. arbitre bi moo ko fi bàyyi arbitre bi. si kàttanu yàlla bu génnee loxo maa ngi si kawam. maam réew ni ngay waxee nii xanaa da ngaa xeeb Paul. barke sëñ Bamba jox naa ko cër. jox naa ko cër bu mat sëkk mbër la ndaanaan la. ay moom ëpp ay victoire fuuf. moom ëpp ay combat. kon kooku du ma ko xeeb. nee na ci sa kaw lay dal nag. arbitre suuf li wu da tere moom du la fa ba ngay xaan xaan yi. yàlla baax na yàlla na ci yàlla yóbbu ak jàmm bu mu def loolu kon kay làmb dina gaaw dina neex. waaw. bu defee loolu. lamb dina gaaw dina neex. bu defee loolu maam boo defee loolu maam Mor lamb dina gaaw dina neex. Hmm. te dinga nga dar gémmiñ lu leer laa lay wax. waaw arène sama stade la maa fa njëkk a bëre jour bu muy ibbi maa fa njëkk a jël drapeau spécial war fa bërewaat combat spécial combat bi jaral na ma lu nekk hmm. waaw. kon bi mooy sa deuxième fois nga fay dellu. arène nationale sama stade la ku fa ñëw maa lay wax fii ngay taxaw stade bi géew bi nu mu mel man maa lay wax nu mu mel géew bi suuf kase la. boo ay nekk di arrière sax comme pël bu daaru nu muy bëree nii combat bu mujj seetaan naa ko moom bébé ama da rek fee bu ko bu fa arrière day daanu te kenn du ko laal suuf see bëri na taxaw ñu suul tànk yi jàppante bagaar man sama combat day neex amateur yi loolu la ñuy xaar si man. te na arène nationale moo ko ubbi ndax bokk na si ñi fa njëkk moo fa njëkk a jël fa drapeau spécial ku fa ñëw moo lay dalal te fa la lay dalal wan na fi ngay toogee. bii dina dalal gan boo xamante ne nii bu ñëwee day yeewi gan guy gan guy yeewu bee lay dalal bii <laughs> voilà gan guy yeewu bee lay dalal arène nationale incha allah. mbaa du béy bu mu yeew nga yeewi ko. bu mu yeew ma yeewi kay ba dagg buumba sànni. Hmm. waaw waaw. maa la wax maa la wax loolu noonu. parce que sëñ Bamba jox naa ko cër. jox naa ko cër bu mat sëkk mbër la ndaanaan la. ay moom ay victoire fuuf moom ëpp ay combat kon kooku du ma ko dafa bokk si yoon bi rek liñ naan na rang bi jub moom na rang bi jub laay wax. si la bokk quoi. mais Mamor la la la lu ne ci moom léegi da mel ni ku soppeeku confiance bi maanaam arbitre bi soufflé ak yooyu lan lo loo maanaam lu duggaat ci yow lu bees. damaa yëg sama bopp rek. entraînement lekk ba suur tëdd nelaw. waaw mafia bi topp sama yi ñoom Landing ñoom Baye Naar xam nga ñoom Ousou Bane luñ ma digal rek loolu laay def. Mamor bu bëggee dégg-dégg du ma dox sax du ma tëdd sax di xalaat ndax am naa combat bu metti wala affaire yooyu noonu damay préparer combat bi nag jox naa ko cëram dama koy préparer comme ni may mais pour toog di ko xalaat nii wala di ko enjoy non non. bu arrièreul man si kawam laa jëm man lijjantiwuma Paul. gaynde gi ngay waxal jàmbaar ji. doomu faas doomu faas dafa leer. déggoo ma la wax Mamor taasukat la. moom yooyu la mëne dañ koy bàyyi ak loolu noonu. waaye nag gëj naa daanu da daa waaw incha allah dañuy ñaan yàlla am ndam ci kawam feree ne ko comme ni mu feree ne booy moom. waaw incha allahu rabbi ci kàttanu yàlla. Paul aw ma lu may maytu si moom Paul entraîneur am ñoo bokkoon écurie entraîneur am ki koy jàngal bëre waaju xeesal jooju waaju xees pecc yi bokk écurie nga ne daa xees bokkoon écurie fan yii dafa ba weex xam na ma bu baax a baax Paul entraîneur am xam na ne bu ñëwee jour boobu si kattanu yàlla day daanu moo la gën a xam loolu yéen ñaar ku dàq ki dàq bëre jour boobu lay feeñ si arbitre bi génnee suñu diggante nga xam kan moo dàq bëre ku dàq bëre yàlla na yàlla may ndam ku ah. ëpp fit yàlla na yàlla may ku gën a ñeme yàlla na yàlla may ndam waaw ku ëpp doole yàlla na kon lii yaa ko ëpp maam waaw waxuma maa ko ëpp ku ko ëpp laa la wax te buñ jàppante maag moom dina xam ne moom ëpp ma doole te maam moo dàq ma bëri gënu maa oos. ki dàq bëreel jour boobu lay feeñ si arbitre bi génnee suñu diggante nga xam kan moo dàq bëre. côté mobilisation arène nationale lañ jëm de kan moo jëppale ëppale mbooloo. waaw man nag maa ngi sàkku mbooloo xam nga waa Fass Mbao duñ dem esaat nañ génn ñu dem esaat li ñu am ñoom dafa jafe ay xale yu ndaw di bëre di daan écurie bi ñoom Petit Tigre fi am na combat di si woo ñëpp le 29. Ibra Mbaye am na combat na ñëpp ñëw ñu jàppale ko si combat boobu yàlla may ko ñu ñu jublu sama combat le 15 yàlla may mandam maa ngi woo ñëpp ñoom Pape Sané policier ak jabaram diwoo woo madame ak jëkkëram Baye Doudou di woo sama mag diwoo woo Mame As Seras di woo ñëpp fàtte ku ma fàtte rek na ñëpp ñëw il faut combat bi moo laaj mobilisation comprendre nga ñu jënd bolog yi di woo Ousseynou ak Assane ak Jelaani ak Pape Gueye ñëw jàpp si combat bi comme ni ñu doon jàppee si yeneen combat yi ak Mon Ndongo di leen woo bu baax ñëw jàpp si combat bi dama war a daan kii waa dem sama yoon. promoteur bi ko teg Thiam production loo koy wax. waaw kooku xale la jeune la bu ñu nangu pël bu daaru bul nangu promoteur bi gën la gore dafa yëkkati xaalis bu bari teg ko sa loxo yëkkati xaalis bu bari fay ma ko kon jour làmb ji nañu wane njàmbaar fulla ak fayda ak jom. que le meilleur gagne yàlla mooy maye ndam man mënu ma maye ndam yow mënoo maye ndam mais nañu wane fulla ak fayda neexal làmb ji man damaa bëgg làmb ju ma bëre ñu ne combat Mamor moo dàq si làmb ji te damaa bëgg bu ma fa jóge waatee rek comme d'habitude ñu joxaan ma avance. nee tamit nga fexe gore ba promoteur bi jeune la fay na bu bëri nee na fexe ba indi fa mbool nee na fexe fexe ba sa mbooloo ñëw ci ba. <laughs> xanaa yow sa waay xanaa Mamor man la xale bu ndaw bi mobiliser huit kaar yeeg dix kaar yi yow quatre kaar sax du la topp ngay xaaj ñu naan mbooloo foo jëlee mbooloo yow quatre kaar sax du la topp man maa yóbbu ay huit kaar neuf kaar esat waaw. bu dee si mbooloo moom yow nga toogee ne la ambiance maa ko moom bëre bi tamit maa diriger lu leer laa lay wax waaw incha allahu rabbi dañuy daan incha allah ci kàttanu yàlla ndax ñu koy liggéey. sëqal na njañ ñe de. na njañ ñi waaw gisoon nañ fi bu na am rasa ma lay wax ne jour bu yeboo nga takk rasa yi dégg nga ma lay wax jour nga takk rasa yi bu dëgër bul bàyyi mu yolam waaw Mamor mooy bu na am rasa bu na am rasa laa ko tuddee ah. waaw. na nga fas yéene la nga am ci rasa yi bu ko takkul kay mooy loolu. waaw na ko wat kay wala mu takku ba mu dëgër. waaw sinon mooy loolu du baax ci moom de. waaye dégg naa gars yi nag ne moom ragalul dara de dégg naa fu arbitre suuf ne mu ngi sa kaw. ak ñi muy dox seen kaw. yow la ko def ñaata ponkal lañ ma indil ne ma bu adduna pipe dañuy dox sa kaw ba ñëwee dañuy taxaw lay xew sax man maa koy def du moom kese quoi bëri na ay ponkal yoo xam ne ñu bañ fi jaar lii lañ wax pool bu adduna pipe ñoo ngi sa kaw te bu adduna pipe dañoo taxaw waaw man maay seerse seerse ba làmb ñu muy jeexee yàgg nañoo bëreeg ponkal kon Mamour mi jaaxaluñu non non waaw. gàmmu gi xam nga ne ñooy bëri combat bu mag. sook du ma yóbbul dara gaamu gay du ma yóbbul dara ñoom ñaar su ma daanee nënd bi seen kanam laa koy teg ragal féete day xañ a wërsëg li ngay def da nga koy ñeme ah. waaw soq ak gaamu gay xam nañu bu baax. gis naa la fi sax ngay dëkk Ama daa Ama Balde laa gën soxla ñëpp Pikine dama faa dugg daan ñëpp booy yëpp laa daan Pikine instant yi mbër amatu fa soq ak Ama rek ñoo fay mbër. booy ñaar du mbër. bi sama mbokk géwal la man mbër man géwal ci nday ci baay laa di. ma seen du Eumeu Sène mbër la mais man Boy Niang laa la mooy sama mbok Boy Niang mooy sama mbokk ah, géwal. Eumeu séeréer la. waa li may mujjee wax waaye mooy di woowaat ñëpp rek. di woo ñi ñuy jàppale. xam nga population bi di woo ñëpp. bàyyiwuñu kenn na ñëpp ñëw jàpp si incha allah le 15 mars incha allah ñu dem esaat suñu borom defal ñu ndam incha allah di woo ku mel ni Idi ak euh, Youssou Africa Pip ak caabi bi si amay di woo ku mel ni Mara Cubu Laay Ndiaye ay Ndak Mbay ay Grand Boubou Mosar Ba monsieur le maire di woo ñëpp daal ay Awa Gueye Sangalkam di woo ñëpp ñu ngi siy jàpp mais nañ ci gën a jàpp ndax combat bi dafa nekk boo xamante ni jaral nañu daal te am na fu ñu war a yóbbu buñ ko daanee dafa am fu ñu war a yóbbu te incha allahu bi ñoo ngi ci liggéey bi waaw di wax tamit ñi kilifa diina yi nañ ñëpp ñaanal ñu ngi gis ñaani sax mais nañ yokk ñaani bu baax a baax a baax waaw di wax daal ñun ñoo ngi nii comme ñu ngi fekkee nii chaque jour ñu ngi suñu ginnaaw dirigeant ku si mel ni Modou Fall Maser Seedo Abou Sey Issa Pouy Idi ñoom ñëpp daal ñu ngi seen ginnaaw ñoom ñoo ñoom ñoo ñuy tàggat di woo mafia bi jéemu maan yi waaw mafia gaji rend gi ñëpp gaa yi nga koy waaj daal bu baax a baax a baax waaw. moom nee na Fass Mbao jur Kër Massar. Fass Mbao moo jur Kër Massar. waaw loolu kenn werante wu ko loolu mën na nekk mais amaana xale bi muy bëreel daaru ci bu lay jógee. di entraîné Kër Massar xam nga ma la wax bu fekkee ci wàllu mbooloo moom nee naa na lem ay dëbësam toogee ne le. noonu na sax Ama la soxla ndax daa daan waa Pikine yëpp ne comme yow nag yaa ci. <laughs> waaw nag ba na pare ba na génn ci bii nii. voilà na xaar ba génn ci bii nii moom pour moom instant bi am na combat bu yomb Mamor amul combat bu yomb amoo combat bu yomb de Mamor boo tëddee da nga ko def sa xel. waaw amoo combat bu yomb. waaw mun ngaa jàpp na combat bu yomb nga am mais bis bu ñu rànkuwee daje ma ak yow di nga xam ne amoo combat bu yomb. waaw mu ngi dellu rek nag ba combat bi taxaw ba léegi mu ngi dellu rek waaw man waxuma maa ngi sama rukk di liggéey te incha allahu rabbi la 15 mooy tontu bi. Hmm? waaw loolu am na si ah, loolu gëm sa bopp la rek comme nii nga gis Ama Baldé da ngay bëre moom loolu gëm sa bopp la man su ma neexee tey mu ne damay bëre ak Siteu wala damay bëre Ama Baldé wala damay bëre ak Boy mais tamit xam nga yóotu loo jotagul daa am lu nekk ca wet ga li nga soxla. voilà daa am lu si wet ga loo soxla mais léegi da nga yóotu li nga xamante ne jotagoo pour gars yi ne nii nga lijjanti loolu noonu toog. voilà par exemple loolu de loolu loolu incha allah rabi dama koy corriger si kàttanu yàlla. bala 15 incha allah allah rabi waaw. waaw bu baax borom salle musculation bi amaat xam dafa ñëw yor xaalisam bu bëri investir ko si salle musculation ñëw def ko digg Fass Mbao suñu koñ. kon ñun ñëpp dañoo war a ñëw di entraîner fii si salle bi xam nga ma la wax di woo ñëpp gox bi yëpp li ko dalee mbedd Fass Talimaam Jaara si kaw Mandela Elzey Mbao ñëpp ñu ngi leen di woo salle musculation amaat ñu ñëw jàppale ko ak jàmm gën si kàmbaa bu yëpp di woo soxna GP Espagne soxna Diop GP Espagne moom moo may indil samay bagages yi may sol yëpp samay dàll sama gaay yi waaw bébé faa di ko nuyu bu baax ak Mosey ak Maoda di woo mafia Brescia bi yëpp di woo waa Espagne woo naa ñëpp ñëw jàppale ma sama combat bi ma dóor bërëb mu daanu ñoom ñibbi kontaan si yow tamit Babacar jaajëf waay école lit Mbaye Gueye forever école de lit waaw gars yi loxo yi fii bàyyi école bi école bi loxo yi gars yi pour école de lutte pour école de lutte pour école de lutte moom lay wayal ay waay yaa bëgg saaliw xule ba mu jeex ana Babacar jiitu nga leen sànni kala waase daan nga leen jël buñ dootul mi mbàkk woo dama woo yaa yewen gore ma naan génération bul faale ngi ñëw waa Pikine nee nañ mooy Tyson waa ginnaaw raay nee nañ maam ku mu bëreel daan la làmb la ñaari xale la waaw dañoo war a bëre ba tàkk bay laal fii kay <laughs> lam daan def bu ko bàyyi rek gàmb kay sox